Mm-hmm. déglu nañ femme bi expliqué nag defe naa takk ngeen lépp li mu wax. waaw tey jii nag version bi jóge ci côté ba ñëw na mbenn dem na jëli. kii di wax nag. Mm-hmm. nee na xaritu waa ji la. ah xaritam. nee na bokk sëriñ. mais yow da nga loolu lañ bind ci frère. magam ah, ok loolu la ma bindal ni ma freeru waa ji la. waaw olof Ndiaye de nee na xarit dina gën doomu ndey. waaw xëy na peut-être loolu la. ay ca ñu dem xool version wu lii contraire waxi xale yi nga xam ne tuumaaloon nañ leen ci alalu Ondi Ndiaye ji dégg naa ci 14 milliards yu réer. waaye seet si nañu tamit kilifa goo xamante ne ne kilifa la ci ki nga xam ne moo di nijaayu xale yooyu dañu koy nuyu rek kilifa gi ñu ngi lay nuyu. ñu ngi leen di fay. Euh, di leen dalal. fii nga ko waxee ci géejawaay kër Cheikh Adama Sène Cheikh Sëñ Abdou Karim Mbacke. kër goo xam ne Sëñ Abdou Karim miin ko lool. kon fii dalal tey ji lan nga ci euh, nijaayu xale yi wala lan nga ci xale yi. nijaayu xale yi. taalibe Cheikh Issa Diène la. di jàmbaaram di jëwrinam. ñun ñu bokk ci njaboot Cheikh Issa Diène. nekk kilifaam. nekk xaritam bu yàgg nekk wëllëreem euh, lépp lu mu nekk loolu ñu doon ci moom. yow ndax jot nga am leen wala loo jot a xam ci li nga xamante ni moo di problème bi nga xam ne moo daal di am. waa kay jot a xam mooy. la li ñu seetaan ñu wax ko ci jëmm jooju de bëgg nañ ci indi ay leeral. man dama doon pare sax pour doon la diglu nga ne fekk ñu barab sàngam ma taal sa moto ñëw fekk leen fa war nga ne ma dinañ ñëw jëmm jooju yi ñu wax nag Alaaji Mbay Turé la tudd ñu ko xam fii bari nañ trop waaw mooy ndijaayu xale yi moo yaayu xale yi ñoo bokk ndey ak baay waajuru xale yi moo yëkkati woon xale yi jox ko li war ci ñoom yëpp moo ko def ci xale yi ñetti sœur lañ ba ñu doonee ay gone lañ nekk ci loxoom ba fii ma waxe yow foofu ñu dëkk ci Ndakaaru sax moo leen ko joxoon ñoom seen yaay moom Alaaji Mbay Touré moomu nag 83 la tukki woon gi képp ku fa am ab dayra Italie moom moo ko taxawal moom Alaaji Mbay Touré moomu dama dégg ñu naan place bi doon jóg ko daanoog mel ne li fi ne xale yee ko liggéey dafay xale yi dañoo ñëw fekk teraanga ñu dugg ci biir moom moo liggéey teraanga moo ko liggéey bi mu ñëwee ubbi place yi di liggéey di liggéey ba xale yooyu mat a liggéey mu mu mu jiital leen ci liggéey bi kenn ki mu jël taawam may ko sa nijaay ju lay liggéeyoo nag yëkkati taawam may la yaakaar naa def la ni boppam suñ borom dogal ba ñaar magam jooju ak rakkam jooju ndax dama dégg ñu ne xale yi dañoo gisatul seen bopp ci liggéey bi te ñi bokk ak moom ndax ak baay ñi gis seen bopp ci liggéey bi am nañu kër am oto ñooñu seen kër yeeg seen oto yi itali lañ ko liggéeyee déedéet dañoo lëggee nekk muudu muudu ji ba tabax kër tuxu Tuubaa jënd oto am taraanga dem ba gis ni liggéey bi kat fi na nii xale yi néew nañ ci doole ñu ñëw topp ci ginnaaw xale kii seere lépp kii seere oto yi oto nekkoon na ci lu mat quatre cent et quelques oto ki nekkoon marcasam moo seere woon oto yi ki nekk Tuubaa moo seere woon lépp liggéey bi ñu topp seen ginnaaw at mu ne bu ñu masaan def décompte ba pare ba réglé bénéfice bi dafay wëlbatiku kenn ku ne la nga war a am boo ko amee pare day wëlbatiku at yëkkati kenn ku ne vingt millions ko daan def ñoom ñi daan liggéey ci place bi amu kenn koo xam daa nga xëy joxe sa kër dépasse lu dul magasin bi moo lay joxal dépasse kenn ku fa nga dëkkit moo la ko defaral kenn ku nekk boo demoon këram tey ji da nga fekk géttu xar. xale yi nga xam ne ñu ngi ci prison bi jamono. waaw yi ñu jàpp ni waaw. léegi mu dem bàyyi leen liggéey bi dama dem ba moom ci boppam sax ay bokkam sax jàppoon nañ ni kii dañ koo génne ndax li mu nekk téyetu ko. ndax ku dem ba yor liggéey bu toll noonu wëlbati ko waat delloo ca àll ba dëkk jàppi surga di bay nangootoo xool ci magasin yi nangootoo fee jaar jàppoon nañ dug tayef te sax loolu lañ ko teg ba léegi. su demee nag ba nga xaw a gindeeku. camion suukar soxla ko euh, ni mu koy defee. papa balaa ngaa ñëw ci camion suukar bi gannaaw ci say biir yi wax. Mhm. dégg naa nga ne xale yi chaque at ki nga xam ne moo di seen nijaay da doon yëkkati vingt millions jox leen. waa bu ñu ah, bu ñu réglé ba noppi. Mhm. ci version yi nga xam ne jël nañu ko euh, ñu ne chaque maanaam bu ñu jëloon mbuusu ndox ci bitig bi sax ñoom dañuy obligé fay ko. wax wax la joo xam ni day day day day dangal rek mais xam nga loolu yow sax yéenul bitik seere ko soxla fi ndox di ko jël di ko fay ko koy fay boo koy sa bopp mënul ne te mbir mi yàgg na mbir mi yàgg na de problème bi yàgg na daanaka mën naa xam ne depuis 2022 ba léegi la woon suñu demee ba jàpp leen ba mat 6 mois ñu xëy xëy ñoom ñëpp gis leen ñu songu internet yeeg rajo yeeg wax ji lan moo waral wax ji parce que def nañ six mois sept mois tëpp nañ ko lan moo waral wax ji moo def enquête ndax li ma la wax nii bi camion suukar bi dikkee mu mu téléphoné ni suukar bi dikk na moo xam le ni moom danaa def yàlla daf ko baaxee weeru koor dafay joxe suukar moom a Alaaji Mbay Touré tabaski dafay joxe ay xar màggal dafay joxe ay nag am na ay seen télévision yu ko daan contacter bëgg mu daan wane nay mais dafa mu musta génn télé di wax ñu bari mën nañ koy dégg mais doo ko xam buñ la gisoon ni la kii mooy El Hadj Mbaye Touré tey doo ko gëm jumaa ji bi mu ko liggéeyee ñu baree bari bëggoon nañ def interview ci moom xalaatu ko day daw bari na kilifa yi diine yoo xamante tey ji li commencé ba ci xalif général de Mouride laa lay wax tey ji boo ko dékkoon micro li ma la wax nii du du du yeesu wax lu raw loolu muy ahlu Mbàkke yëpp ak ahlu tiijaan fu ci ne teraangaam dem na fa moom liggéey bi lim ci am nekkul ni da koy jëndee kër nekkul ni da ciy dem Dubaay nekkul da dem fenn dafay fas yéene bénéfice bu ñu ko jox mu ci nit nag loolu ni a ko na mu ne ko mun ci jaay wenn fepp jarbaat bi buñ ci jaay dara kooku toog ba ci mu woowaat ko ni ko waa yow euh, man sama nijaay jaaxal nga ma ndax camion bi xam ni commerçant yi ñi ngi soxla suukar si nga taxaw di ko joxe yooyu xam nga nit ak kilifa kilifaam ci ko xam ne musula koo offensé mu wax ko da ngaa dof wala lan moo la jàpp yow ba ngay wax li ngay wax ni quand bu ci kenn jaay dara ñu toogaat quelque temps mu woo ko ni ko daal seet na ko mais daal day day arrêté liggéey bi waaw day arrêté liggéey bi moom mooy njëkk a arrêté da ngay liggéey bi mu ni ko waaw xelam tàmbalee ñaaw ci la ko woowee nag xamal ko ni ko kat place bi damaa bëgg ñu audit ko mu daal di bàyyi keneen ka fekk si ko bàyyi encore loolu moo moo déclenché problème bi moo déclenché problème bi bi loolu amee nag après ñu ki bàyyi toog ki des fi defe naa nekk na fi ñetti weer di liggéey ki nekkoon marché ngelaw moom mu soxla xaalis dégg naa ñu naa dañoo ñëw mënoote ko kenn convoqué ko kenn porte plainte ko lim soxla woon ci place bi matul 10 millions ndijaayam yónnee laaj ko mu lànk nduk ko jox ku mu yónni ci place bi mu mun du fi dugg ba comptable bi dikk mu ko dañ lay bindal kéet nga doog a ñëw ñu laaj ko caabi coffre-fort mu lànk police laaj ko mu lànk du a jox xam nga ni kenn ku xam yoon xam ni police mënoo leen a def xamante ni yoon mën leen ci topp niñ xamee seen liggéey problème boo mën a def ñëw fekk di la mënoot di la yóbbu est-ce que tamit na ñu joxe xam na ndijaay ma ko yónni ndax moo ko fa jël si. Ah. waaw xam na ko. moo ko si xam nga nit ki bëgg a bàyyi. di wut problème pour bàyyi. looloo indi loolu. waaw looloo am police soxla soxla ko mu lànk police ñëw jël si ko. looloo waral manoot boobu ngay dégg ñu naan police dafa ñëw manoote ko. ba mu demee Touba lañ ko jàppee foofu. wax loolu deux la ñibbisi am trois jours mu dem Touba. fekk booba pelant bi mi ngi dox après nag ci lañ leen arrêté. parce que boo fekk na yoon mi ngi def enquête. bi mu defee enquête ba gis ni seen nijaay jii ni alalam ji dem na te ñii mu ko dénkoon kat ah yoon da leen daa topp nag jàpp leen pour enquête laaj ba xam alal ji fan la dugg enquête boobu nag la continuer di ko continuer ba jàpp cinquième personne bi bi keneen ki ñuy wax comptable bi mooy quatrième personne bi si ay wax dégg naa nga ne police moo def enquête bi ba ba xam maanaam tribunal waa ba xam ñaata la xale génne mais ba tey ñun bi dañuy dégg rek détournement mais xamuñu exactement euh, xaalis bi naka la toll wax nii daal muy lu wér mooy gën gaa gàtt mat na 14 milliards mat na 14 milliards waaw loo xam ne réer na ci àllam mat na ko sëkk waaw loo xam ne réer na ci alalam dégg naa ca biir wax ja koy wax ni marché bi sax ñi ngi dajale ay fukki dërëm di jëlal avocat waa daani wax bu bu bu dofee nopp yi koy war a doon nit koo xam ne yow ñi nga bokkal am na ñoo xam ne dañuy jël ay du Dubaay di indi di jaay nekk say sœur xanaa waruñ laa mën a seetaan bañ lay dajaleel avocat bu dee dëgg rek la ñu baree bay doon nañ sàkku di ma wax ni nan di jaay ci wax ñi ma jotoon wax man leen moom du wax ndax bu wax loo wax loo keneen ku dul man bu yëkkati woon kàddoom danañ dégg kàddu goo xamante ni danañ dar gimiñ te loolu jëfam moo ko may askanu Mbàkke képp ku ñuy sukk di la raamal daan la ko daan la ko jox na màggal wax naa la quatre cent la daan jënd ci màggal gi di ko joxe noonu la ko daan defet gàmmu Tiwaawan ñoom ñi ubbi ko ubbi nañ ko Touba ay bitig du benn ay bitig laa la wax seeni doom ñoo ca nekk fii ma toog di wax yow nii seeni jabar ubbi bitig kenn ku ci ne sa jabar daa ubbi bitik di jaay ñii ay yére xale lañ jaay ñii yeneen ak yeneen biti yi ñu ubbi woon jamono yi ma xam ne seen doom ñoo ca ne liggéey ñu jënd seen oto di def système même liggéey bi mu doon liggéey. waaw waaw doon liggéey. léegi nag yooyu yëpp bu amee ba mu amee li tax affaire bi man la yàgg na wax ci biiru mbokk moo yàggaloon affaire bi. maanaam waa kay seen di jaay moo doon bu demee ci kilifa waxtaan. li nga xam ne moom jot na koo trouvé li nga xam ne moom jot na koo trouvé euh, boo wooloo jarbaat yi duñ la wuyusi si. maanaam ci wax kon seen nijaay jooju yàgg na di waxtaan ak ñoom. doo dox ci mbokk yi di waxtaan. boo bàyyee ba mu def gëstu ba xam ni alalam dem na ñim yaakaar ne bu ca demee ñu waxtaan ak xale yi ñu waxtaan ak ñoom def na ko ñii dañuy woo xale yi ñu lànk bañ la wuyu si kilifa lañ de ñii dañ lay wuyu nga wax leen ñu lànk am na ñoo xam ne sax doon leen leen jubaleen nii dañoo bëggoon kat nga delluwaat te liggéey ba ngeen waxtaan xool liggéey bi nu mu nu mu doxee aw yoon ñu waat ni buñ naree àndaat ak seen nijaay faatu moo leen ko gënal kilifa gu mag a mag seen mag jooju moo ko wax magi xale yooyu. yàlla dogal seen nijaay toog continuer loolu ba ci yàgg mu jekk-jekk ñu ne ko jàpp pelante bu bàyyi ko ci ñoom ci ñoom. mu convocation waaw. ñoo njëkk a ci benn terrain boo xam seen di ko moom ñu bëgg caa taq ñoo ko moom fuñ ko jële ni ma am ñoom ñoo ko moom seen di jaay nag xam ni nag jóg jot na ndax yow comme yow yàq nga sama alal te yow laa ko dénkoon te maa ngi waxtaan boobu ba léegi ngir bu fekkee dafa dafa da nga ko denc ñu génne ko yaa ngi taxawal say place di liggéey sab liggéey loolu doyatul nga taq ci sama alal ma wax nga di ma plante kon man waratuma seet may na mën naa dem ci yoon daal jël yépp jëbbal yoon wax ko li nga xam ne loolu laam yoon doy loowul loolu dafa yabal nitu boppam expert boppam mu def place mu def évent def yëpp yëpp ba gis tur yi nga xamante ni fi la affaire yi jaar ñu seet ka nga xam ne bu réglé masaan jot mooy ñëw toog ñu réglé mu bind chiffre ni lii moo fi nekk ñu ni ko tiib téye kooku kooku seen nijaay pelantu ko de x moo ko jàpp ñu téye ko kon jàpp naa ni yoon. li ñuy wax naa dañ leen a tuumaal bu doon tuuma rek yoon amul responsabilité di téye xale yi six mois ñu war leen a àtte ñu ñu ñu ñu renouveler ko mandat dépôt bi pour continuer enquête bi pour xam alal ji fan la nekk. yaakaar naa loolu buñ bu fekkonte ni amul loolu du mën a nekk te yàlla dogalit procureur bi nga xamante ni moo yore dossier bi ku ko xam laa la wax de tabaxal te yàlla tax xam ni procureur bu ñuy ger. muy bi nekkoon Jurbel ñu koy wax Aly du ko ñuy ger du koy lekkum neexal bu dee ragal yàlla moo la gën a def bu dee jaamu yàlla moo la ko gën a def te luñ mën a waat la xam ko mu wóor ma ni képp ku fa dem te yóbbuwoo fa ak dëgg doo ko fa jëlee te seen nijaay nekkul façon nit boo xam ne day dox ci yu mel noonu maam yàlla dogal na nag nguur gi fi jóge duma génn seen loxo ci lii xew nii dañ ko bëggoon dugal ci politique moom seen di jaay te moom xamul loolu mu lànk topp nañ waa nday Mbaye Touré dañ ko bëggoon dugal ci politique ndax ñaare xam nga nguur gi fi nekkoon dañ leen faral def maanaam boo doonee borom barke. koo xam yow lu ëpp nangam ñi ngi liggéey ci yow dañuy soxla nga ni kii laa àndal pour ñu mën koo def léegi mënuñoo am ci loolu yàgg nañ koy bundu xatal ci yu mel noonu. mos leen a wuy si benn yoon ci lu ci lu mel noonu. kon jàpp naa ni maanaam euh, li li li li wëlbati xale yi bañ bañ def lii ñoom génnewuma ci seen loxo ñoom nguur gi fi nekk génnewuma ci seen loxo parce que xale yi meluñ woon noonu nit koo xam ne da nga def kilifa jox ko cër. daanaka sax mën naa wax ni da ko jàppe woon comme sëriñ boo demee ba wëlbati ko di ko attaqué nag dem ba am fitu di ko convaincre nag fas ko yéenee toroxal te seen nijaay yi bopp joo xam loo am moo la ko may am na ku nekk ci sa ginnaaw. mu ngi noonu ma jigéen kooku ñu doon dégg nag ñu bàyyi euh, fàttali ni ab xaritam la. Mm-hmm. waaw euh, léegi nag moom waa ji ñu doon dégg nag bari na yu baree bari yoo xam ni wax na ko ci biir yoo xam nit ab jàngat la moom waa ji xamal nañu ni mbay Touré mi kenn xamu ko woon wax na dëgg naam man dee wax dëgg yàlla tey laa dégg aw turam euh, moom waa ji ci biir wax ji moo ñu xamal ni état moom la mujjee. dafa ñaaw njort ni moo nekkoon ci ginnaaw gone yi état nag ñaari bu fekkee dafa daan soxla nit day fekk mu nekk nitu mbooloo wala ku ñu xam mm-hmm. mais kii daan nëbbutu caméra yi ak euh, tele yi di def ci suuf kenn xamu ko yaakaar naa état soxlawul ko dara man loolu nag sama xalaat la ñaareel bi état ñaari ku masaan a nekk ci sa euh, ginnaaw tëj la du yomb bañ lay mën mënee dabbuus la ci kaso bi te xale yi ci état wu Macky lañ leen tëjee lañ leen jaayee doole mm-hmm. kon nag jàpp naa bu doon état moo nekk seen ginnaaw kon loolu du mën a mm-hmm. jàll waa ji ba tey xamal nañu ni ñun nijaay ji doon na fay vingt million doon na fay xale yi ba pare may leen vingt millions te mi ngi yéemu ci ay terrain bu xale yi jënd mu ngi yéemu ci ay jabaram ay place yu ñu am koy fayee ko nag ba pare ñu lay may vingt millions nga liggéey fa lu ma dix ans war ngaa mën a yorub xaalis mm. ci biir loolu nee na xale yi tamit dañ leen doon ketal mu yéemu ci lu tax mu am ay mbokk xale yi am ay mbokk yoo xam ni dañ leen doon ketal ba pare mm. léegi nee na loolu nan la mën a nekkee te ay mbokkam di yor ay conteneur ma jàpp nag ku yor sa ndijaay mu mën a tëj ku am gis sa ndijaa ji tëj ñeenti jarbaat boo gisee mbokk mu dimbalul ay mbokkam war naa mën a nekk boo mm-hmm. waru koo yéem ndax moom gis na ndijaa ju tëj ñeenti jarbaatam kon ku dimbalul sa mbokk waru koo mën a yéem ma jigéen élément baa ngoo waaw son bu lu ma ci wax rek mooy que ni moom lu mu ci xam rek dañ ko koo nettali te gis nga parfois di wax ak sa axulay ah, taala dafa baax parce que mm. yàlla moo lay tiim peut-être lu ñuy wax rek kenn mënul euh, nax nit ñi waaye mën nga nax sa bopp. Mm-hmm. bu fekkee ne nag danga koy def pour bëgg loo ca am euh, d'après nu mu expliquer rek wax mi ngi mm-hmm. tudd alal alal alal alal alal. Mm-hmm. te wax yi mu wax ak li euh, soxna si wax ak ñeesa li ñuy wax dafa am ay contradiction yu bëree bëree bëree bëri. te aussi yoon comme ni nga ko waxee rek. peut-être tëbul tëb rek jàpp xale yi ci ci ci neen peut-être am na lu ci laxasu te itam maa ngi la ko doon wax keroog ne la même ñi ñuy tudd ne ñoo jóge bitim réew ñëw sax man jàpp naa ne. Mhm. ñëwuñu rek noonu ak seeni loxo yi neen. di mën a gérer seen alalu bo mag noonu mm. jàpp naa ni am na luñ ci dugal mm. en tout cas histoire la bu nga xamante ne ni fa dëgg yàlla jaxasoo na si bopp nit ñi parce que ku ñëw ñi mën naa jaxasoo sa bopp bi yow nga ne woon baal premier élément bi ñëw ma àtte jaxasoo na si bopp nit ñi ak ku ndax ku ñëw indi version am léegi kan ngay gëm ak lan moo siy dëgg mais man daal li ma mën a wax daal mooy que ni waa ji mm. lu mu ci wax rek peut-être nit moom moo ko ko wax mais mënul xam <coughs> dëggantaan li xew ci biir affaire yi jaajëf jooba jubba alaaji noo déggee version waa ji ñu ni moo naroon indi ay leeral ci mbir yi. Hmm. waaw waa ji de bu doon ku ñu yónni la moom xam naa ni ña ko yónni. Hmm. danañ ne ko yu mato ndaw. kii parce que moom dafa ñëw. Hmm. di di lay. far di pëtëxal ki muy layal. man nag loolu moo ma jaaxal ci mbir ba pare dugal mbiri ci politique. waaw parce que yooyu yëpp ay erreur la yoo xam ne bii def na ko ci communication bi. loolu mooy pour jéem a làqatoo nguur gi sax la bëgg. pour booy ñu booy gën a des ci kaso bi muy wax noonu pour jéem a làqatoo nguur gi wane ni moom. waaw Macky Sall da koo soxla mu bañ waaw Macky Sall da koo doon xeex. Mm. foofu la bëgg a làqatu jukaat fi mu bëgg a làqatu baaxut. Mm-hmm. Euh, leneen li nga xamante ni bi moom la expliqué. Mm. ci wàll wi nga xamante ni mooy euh, xale yi liñ doon gañe yooyu aussi tamit li mu li mu ci wax parce que nee daan na leen fay ba pare. jox leen vingt millions maanaam jox leen weer vingt millions at mu ne. ku loolu day ñëw. ma jigéen calculer ma vingt millions plus de dix. loolu kii la loolu la mu leen doon may la de. kon xam kon xam nga alaaj la mu leen doon fay am trente millions la leen doon fay. waaw kon léegi am nañ calculer daal. deux cent cinquante millions. dix ans yi am nañ ci deux cent millions. non li mu leen doon may. waaw li mu leen doon may. waaw bokkul ak mu leen doon fay. waaw donc loolu. nekk loo xamante ni bi lu bari la waa ji man nag dama jàpp ni bon moom kenn wax waxloowu ko nag man jàpp naa ne. nee na dañ koo waxloo. non nag kenn waxloowu waa ji man dama jàpp ni. Hmm. dafa gis mbir yi rek xam ni kii borom teraanga la dégg na ñu ngi yàq kiyam ci rajo bi mu njëkkante ji daal ne kenn déggoo ko mu ne ko dama ne man sax bu nga fa mën a nekk ma fekk la fa. waaw boo ñëwul foo mën a ñëwul foo mën a nekk ma fekk la fa. maanaam dafa ñëw pour wax ni. Mhm. pour dégg bu paree yóbbu kii bi ne ko gis nga ko na may défendre yëpp yi. Mhm. maanaam moom day liggéey fi mu toll nii ci pour liggéey la. liggéey waaw mooy avocat waa ji waa ji am na teranga de. na am ay avocat média. waa gis naa teraanga gis naa ko fi mu toog de waa ji am na teranga fi mu toog dafa am luy tax nga di fa toog. teranga boo dee naan di non non quoi teranga ça dépend ci ni ngay amee teraanga nan ngay amee teranga. Hmm. teranga nan nga koy amee parce que tey. kii itam soxlaal na waa ji dara kii am na teraanga di alaaj waaw mais <laughs> looloo waral lool teraanga googu nga gis hmm. déggoo ko lim la wax moom ñëw na ba ne gàtt gàtt quatorze milliards waaw dégg nga la xale yi duubal il faut nga xool nag foofu marge xaalis bi ñuy wax ba pare nee na alaaji milliards nga nekk ba nga nekk ci kiiw ay milliards alaaji gis nga waa ji ni mu doyee delee mbay nee na ndejaaju comme dafa dem ci àll bi di bay waaw xale yi dañ koo liggéey waaw moom xamul mbay sax moom dafa am yu bari yu mu xamut xamul ni avenir kii borom alal yëpp a ngi investir ci mbay. dëgg la moom xamul ni mbayu borom alal bokkut ak. mbayu kii yi. déedéet comprendre bokkul njaayantu yi de nga xamante ni bi du ñoom Babacar Ngom a ngi nii di bay. waaw ah wut ay hectare lu ñu am mbayoo leen ko may. Ah, donc mbay. ni c'est parce que fu ñuy tudd ay quatorze milliards ak et cetera. Hmm. xam nga ni kooku tool ba mu yor. Hmm. tamit euh, moo lay wan ne la moom am na yu bari yu mu xamut sax. mais dafa profité rek pour kii waaye tey jii kaset kii bi du ko yóbbu parce que lii ñuy wax lan du ko yóbbu lii ñuy wax ni moo yàqal kii liggéey bi ay kii am na teraanga soxlawul lii dara naa da koy dagg nag lu muy dagg lii ñu wax ni <laughs> lii ñu wax ni yëpp dina ko dagg ñi dañuy aay dañuy am monteur monteur daggal ma fii ba pare yut ko waaj ko na ko gone yi xaw naa leen a rey xaw naa leen a rey waaw doonu ci loola nekk affaire bi il faut nga jël ko yóbbu ko ci côté politique. waaw ba pare nijaay nan lay amee problème ak ay jarabaatam ngay enfoncé xale yi. mais ñëwal APG. non tout cas daal. indi jàmm wax dëgg moom ni mu waxee daal. <coughs> baaxut maa moom ni mu waxee moom. <coughs> dafa am yu bari yoo xamante ne bii. Euh, kii ah. wutu génnewu ci ki mu bëgg génne ko waaw man de surtout bu duggee ci politique sax moo ma jaaxal. waaw parce que tey. ñee bu leen Macky Sall la ngeen moom ak bu fekkee ñoom ñooy jaay doole. ah euh, bu fekkee ne dafa am ñu ko bëgg ñu ko bëgg a yàqal. ba noppi ñu kële wëlbatiku tëj. ñi tëj leen yéenawul maanaam mag yéen leen ba pare tëj leen. waaw waaw vraiment léegi nan ngay yónnee nit ba pare tëj ko. loolu yéenawul maanaam. loolu yéenawul nit kee boo ko yónnee mag yi moom ñi ñi gis ñi ñi mu yoroon ci nguuram. waaw dañ la daan menacé ba pare sax ah, tëj la. waaw tooñ la tëj la. loolu sa tëj sa loxo